nettalib juróom fukkeel bi ak benn njariñi xasida yi sëriñ tuuba xaala lawu laahu maxtaara lawu am na bayit woo xam ne bi mu ko bindee sunu boroom subhaanahu wa taala dañu ko faral bayit woowu ndax li feek bayit wi mi ngi ci kaw suuf ku faatooti aljana la jëm te dama dig sawara loo xam ne fawu dana ko def ngir maa wax ne la am la anna jahannama minal jinnati wan naasi ajmain te loolu fàww ma def ko sëriñ bi far bayit wa waaye yàlla tawféexaloon na ko njëkk mu koy bind mu xam ni bu ko bindee looloo ciy mujj moo tax xasida gi mu daanelee ko tàmbalee ko bayit woowa ngir barkeeloo ko ca nee na bi muy bind xasida nafaani la siiw na lii mooy xasida gi ngir ku ko bëgg mokkal nax نفعني من لم يكن بولدي ولا بوالد فطاب خلدي على الذي ولد حير ولدي وحير والد بحير بلدي بآله وصحبه والحمد صلاة ذي العرس العظيم الصمد تلي تلني جنا قمات بويرني توتي حرفي تخول متوتي كباتن نحلي النبي صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم وحني جف يب مي تاكو تي ني في من سيرين بي قال له الله مختار له بوي بند لومو تي جوبلو لي ام بسنا نغا حسيدك يعبد كل الله رب العالمين ان شاءه بحكمه الهادي الامين بيت بوتي ني جام نادي نياري اتلاك يوني نانغو نكو نونو حسيدك لم جاب جام يالا ام اتلاك yu mel ni nag ku koy dégg te xamul lu bari da koy jaaxal waaye bu xoolee ñaari aaya yii du ko war a jaaxalati wallahu yaxtasu bi raxmati man yashaaw wallahu ala kulli cheyin qadir yal nañu rafet njortu ci wàlliwu yàlla yépp te jox sunu lépp sëriñ tuuba xaala lahu llahu lahu mi yàlla boole ñun wallahu aalam nettalib juróom fukkeel bi ak ñaar wax yi sëriñ bi ci fonk mbokk sëriñ tuuba xaada lahu llaahu maxtaara lahu nee na dee fonk ak mbokk ndax alali yàlla te kenn bëggul ku sàggane sa alal siiw na sëriñ bi xaada lahu llaahu maxtaara lahu daa mel ni aaya bi lay leeral wattaqullaaha alladi tasaaluuna bihi wal arxam ndegam ragal yàlla la sunu borom tudd teg ca ak mbokk kon da nga xam ne ginnaaw bu ragal yàlla jàllee dogug mbokk lañu war a gën a ragal wallahu aalam